ah non j'ai bien j'ai bien suivi j'ai bien suivi te mm-hmm. effectivement man chaque jour may leen ñoom ñi nekk ci nguur gi ils ont un problème non pas de bilan mais de défense de leur bilan. Mm-hmm. ndaxte lu ñu li ñu liggéey. Mm-hmm. lu mu wax noonu les centres de formation la il y en pratiquement dans toutes les dans tous les départements. et pourtant on n'en parle pas du tout. il y a de formation à des métiers yoo xam ne am na fi mais on n'en parle presque pas. voilà loolu aussi mu nekk beneen problème te lu mu wax aussi c'est vrai ñii bàyyi seen cantine ñii bàyyi seen boutique pour jël mbëkk mi c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir ici te pourtant amoon nañ si lu ñu doon lu xëy na dañoo voilà maintenant cet espoir la comment le faire revenir mm-hmm. moo tax ma naan le prochain président son défi un c'est la réconciliation nationale mm-hmm. le pays est trop divisé mm-hmm. entre pro et anti mooy benn deuxièmement comment faire vivre l'espoir dans ce pays. revivre l'espoir comment faire revivre comment faire revivre Aliou comment faire revivre l'espoir ci loolu lay pioché. mooy réconcilier. voilà revivre l'espoir. donner de l'emploi aux jeunes. loolu yëpp dans l'espoir.